ربنا إنك رؤوف رحيم أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله نوي أبي سنو كادو كادو القرآن سنو برام سبحانه وتعالى دي واخ gaayam yooyu nga xam ne jiitu nanu te seen nekkin ci àdduna rafetoon lool ba tax na ñi ñi bàyyi àddina duñu dañ mukk ci di leen fàttaliku waaye itam di leen ñaanal di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla lanu jóge waaye ci moom itam la ñuy dellu li ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal itam moo nekk te mooy dëgg li sunu boroom joxe moo ko moom waaye li mu nangu itam moom moo ko moom waaye ñu mën a wax ni garab gu màgg daanu na ci pénc mii nga xam ni moom mooy Njaasaan ndax li bindukatu tubab bi wax ni euh, la valeur n'attend point le nombre des années nit li koy valoriser diko jox xima du ci ay at ndax nee at yi c'est le poids de l'âge waye mag ci taxaway la ak yitte moo tax Ahmed Amin bi ko doomam laajee ne ko dama mat bis ni tey ndax li góor di taxawee yépp mën naa ko taxawe daf ko ne pour nga mën a mat dëgg da ngay xam lan mooy masuliya lan mooy responsabilité mu tegu ci sa kaw nga nangu ko waye alhamdullilah rabbil alamin jëmm ji nga xamni mom moom la ñuy defal hommage moy Ahmed Mokhtar ku xamone lolou la mu melni yi ñu fi wax yëpp lu daje ci mom la mu nekkon ndaw waye yoron taxawayu mag taxawayu kilifa Ahmed Mokhtar boko tàmbale ci njàngam da ngay wax ci maasam lii nga xam ni moom moo gën a jafe jàngkat yi mooy naxu walla balaaxa wala sarf maasam mën naa ne amu ci woon ku ko peegoon la yàlla dimbali woon ko nag mu àndoon nag ak yar ak teggin ak kersa ba li mu làmboo woon sax dangay ngay foog ni ku xamul lu bari la fekk xam-xam moo nekkoon ci dënnam yàlla dimbali ko bi mu jógee ci njàng moomu dugg ci wàllu audiovisuel dugg ci wàllu communication te jàngu ko fenn mu nekk benn don bu ko dikkal waaye mel ni ci moom jafe na lool lool lool moom Ahmed Mokhtar Yalla, defon ko ci mu amo ci ak ubbiku batay bari na lu ñuy seetaan ci ay documentaire nga xamni ati at yi yep ñun ñoo ci doon liggéey joxe ko ci télévision yi nga xamni mom mo fi nek waaye ku ko gis limi muy wax moy sen qualité liggéey dafa jéggi dayo te fa tabarakallah lepp lepp moom la woon ki nga xam ni moom mooy Cheikh bu Diop yàlla na ko yàlla dolli wér clip yi mu mujjee tourné yëpp tabaarakallaahu Ahmad Mokhtar moom moo ko liggéey ak ci yenn émission yoo xam ni yenn ci télévision dañu koy soxla waaye bu ko defee ba joxe ko ñoom itam liggéey bi dafay doon lu mucc ayib ci ñoom waaye yàlla dimbali ko itam ci wàllu infographie ndax am na ñoo xam ni marqué nañu lool dundu Ahmed Mokhtar mooy ci at yi ñu génn commencé ko nag ci kayu maam alaaji ndax ci kayam ci la fi jóge dem Maroc jàngi jóge fa waaye ci Maroc gi mu nekkoon néeg ba mu nekkoon mbokk yi nga xam ne ñoom la jàngaloon doon dañ koy seede ay zawaaya yu bari la waaye moom bokk na ci sël ki nga xam ni yeneen zaawiya yi daan nañ ñëw ci moom di jàng te na la jàng mooy wàllu internet wàllu communication wàllu infographie yàlla li ko ci mayoon dafa jéggi dayoo bi mu jógee foofu nga ñëw ci ayu maam Cheikh Al Becaye lépp lu fa doon wàllu document bari na lo xamné mom moko défar ba ci carton d'invitation yi ñu doon joxé ci gam bi ci comité scientifique bi ci cellule de communication bi ci kuréelu khilafa gi ci lettre confidentielle yi lépp mom moko ko doon defar dans la plus grande discrétion and ko nak ak sutura bo xamné ne jéggi na djégé djégé mbir bu la concerné wul ci morom du ko wax sa kanam loolu bokkoon na man ci li ma gën a yéem mooy sutura boobu nga xam ni tabaarakallahu amoon na ko boo jugee ci kayu maam Cheikh Albekaay nga ñëw ci kayu boo Cheikh Bou Sidi Mokhtar nga commencé ko ci kilifa gi ci boppam bari na loo xam ni njabootam ci moom lan ko doon liggéeyloo ak sutura Cheikh Al Khalifa njaboot gi nga xam ni tamit coordonnateur tabarakallahu wóolu gi nga xam ne wóolu nañ ko ko waaye liggéey gu mucc ayib lala ciy defal waaye nag mu ànd ak sutura kon booy wut nit ku am valeur ba romb Amad Maxtaar defe naa ne mën ngaa yéex a gis am valeur booy wut nit ku am sutura ba romb Amad Maxtaar mën nga koo bañ a mën nga ko yéex a gis waaye tam dogu ak pas-pas ak dëggu lu ma gën a yéem ci moom la lu mu gëmul du ko dox du ko wax du ci ne tey bu ñu taxawee ni Ndiassane TV nga xam ni mi ngi liggéey liggéey bu am solo ñëpp di ko gis defe naa ni Maxtaar moom moo nekkoon kenu ba tey mu yóbbu ko fu sori waaye ci communication Ndiassane Maxtaar daf ko yóbbu fu sore sori sori yàlla nag boole woon nu waaye dañuy wax ni naqar la bàyyi ginnaawam waaye bàyyiwul benn yoon gàcce mboole nag ñi nga xam ne ñoom la sekkaloon liggéey bi liñ ko gëna nawe mooy dëggoom ak goreem ci xaalis ak doyloom benn bu ci nekk suñu ko doon wax mën nañ fee def ay waxtu yu yaatoo yaatu yàlla boole woon ko nag ak ay mbokk yu baax ak ay mbokk yu mu bëggoon lool ndax ndaw la waaye dafa amoon royuwaay royuwaayam nag moom mooy doon Cheikh Sidi Lamine di maamam mu gëmoon ko lool gëm gi itam dëggu ci moom lool ba tax na ci su maam si Lamine bi nga xam ni moom lañu mujjee def ci at yi lépp moom moo ko doon coordonné waaye saa yu ñu ñëwoon tam ci anniversaire am moo xam ci calendrier grégorien bi la dana def le tout ba dajale ñu ñun ñu dem daje ji kër sëñ Sidi Mokhtar defal ko kaamil mu yéene ko maam Cheikh Sidi Lamine ndax moom la gëmoon ba jeex ci moom takk gëmoon itam maamam waaye gëmoon itam baayam bëggoon lool mbokk yi nga xam ni ñoom la ko yàlla boole loon te ki mag ci ñoom te mu gënoon takkoo ak moom mooy soxna Mariama ñëpp wit nañ ñëpp ñàkk nañ waaye moom it ñàkk na waaye nag lépp dañ koy delloo ci loxo sunu boroom subhanahu wa taala ndax moom mooy faalun lima yurid waaye yàlla boole woon ko nag ak njaboot goo xam ni yàlla daf leen a dafa juddu rek bokk ak ñoom gis-gis ak xalaat mooy njabootu Cheikh bu Mouhamed Kounta Baye bu ci ay gént yoo xam ni dund na ko ak maamam jooju Cheikh bu Mouhamed Baye bu waaye kenn ci njaboot gi gën tuuti ci njabootu Baye bu yàlla dogaloon tam mu nekk soxna muy soxna bàjjan bàjjan itam ñu koy jaal ndax wéet na ñàkk na waaye nag ku ànd ak yàlla rek doo jaaxle doo wéet loolu la ñu Cheikh Bounama Kunta jàngaloon fa tabaarakallaahu ak njaboot gi nga xam ni ñoom la bàyyi ginnaaw waaye wéetal na communication Njaasaan nag ñu di ko gën nag jaal ki nga xam ni bokkoon nañu liggéey Dame Kébé di ko jaal njaboot gi nga xam ni tamit àndoon nañu ak moom ci liggéey bii nga xam ni moo nekkoon communication Cheikh naama Zeyne Abidine nga xam ni ñoom ñooy ay ay xaritam ak Cheikh Abdou Khader Jeylaani ak ku lim rek juum waaye bari nanu yaatu nanu te kenn ku ne li mu sekk ak yow bokkul ak li mu sekk ak sa moroom waaye jàmbaar dëgg moom moo dem te doo ko dégg benn yoon mu mel ni ku caalit waaye nag ku gëmoon borom bi subhanahu wa taala la te bis bi itam lu mu waajaloon la démb tey soog ñëw waaye nag dañuy dal xel di am nag yaakaar bu baax te dolli rek di ko ñaanal te xam ni liggéey na liggéey boo xam ni fii ba àddunay tukki njaasaan du ko fàtte xadara bi du ko fàtte waaye ëhlu yu tam du ko fàtte bokkoon na ci projet yu ñu nasoon mooy gàmmu njaasaan gi amoon nañ ci yitte yu kawe waxtaane nañu ko yàlla dimbale ñu nag yàlla jaxase woon boole woon ñu mosuñoo toog bis boo xam ni gisante déggante wuñu bu ñu nekkul fii itam bis bu ne ñu ngi déggante te mosuñoo wax benn wax bu dul buy delluwaat rek ci lu jëmale kër gi ak xadara bi kanam ci yitte jooju rek la mës ne waaye nañu xam ni ku dëggu dem na ku franc dem na ku dund ci ngor keroog maa ngi koy wax ma ne boo bëggee dégg baatu dund ci ngor xoolal maxtaar ku dund ci ngor la ak dignité kon kooku tam dem na ñu koy ñaan di ko ñaanal yàlla yàll na yàlla dogal mu mottale ndawam ca aljanay firdawsi ya bi xurmati saydina muhammad alayhi salaatu wassalaam yàlla nee nañu dina def lu mitti waaye du def lu bon kon nañ ko delloo foofu rek te xam ne lii moom mooy li gën di jaalaat njaasaan di jaalaat njaasaan tv di jaalaat cellule culture et communication di jaalaat mbolé rek ko xamni ndaw nga tay xencu mbax wala ta nek ci tariqa bi wala ci nek ci diine ji maxtaar maxtaarum ñëpp la won in uridu ila al islah mastata'tu wa ma tawfiqi ila billah عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا لا والحمد لله لا إله إلا الله